bismillahi ma kunna linahtadi lawla an hadana allah ñi fi doon tëgg ca tabalay sikkar fi lu neex macha allah teg ci waa ahlu zikar macha allah li waykat ba waxoon moo ñu daal sànq man maa ngi koy tooñe ne leen ku baax di bëri ay te ñun macha allah xam naa danoo tax ñu bari ay bàjjan fa tabaarakallaahu yàlla na yàlla guddal seen fan eh, di nuyu di ziar maam As Aydara di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam yàlla wéral ay cëram ndax bu doon dañoo toog ci jotaay bi te surtout Seydina Muhammad toogu fii dina xaw a kii dina xaw am lu fi manqué jërëjëf waay xaw ma kan moo dindi écho bi waaye yàlla na la yàlla fay waaye sunu biir jotaay bu ñu ànd ak sëtu Seydina Muhammad sant yàlla la kon yaam as yàlla na yàlla guddal say fan yàlla na yàlla wéral say cër nga doon sërif ci ndey doon sërif ci baay kon yàlla na la yàlla saxal sunu wet di nuyu nag di ziar sunu wayju yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi sunu papa Mbaw ñu ngi koy ziar bu baax sunu papa Abdou Gueye ñu ngi koy ziar bu baax sunu papa Ousseynou gay ak it sunu papa Baskan ak sunu papa yi nga xam ne ñoo nekk ci wax yëpp ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal yàlla yàlla guddal seen fan yàlla wéral seen i ñu yàgg fi ak ñun yàgg di ñu gunge ñaanal nag képp koo xam ne bés bii tey def nga ci sa doole képp koo xam ne def nga ci sa doole maa ngi lay nuyu di la ziyaar di la ñaanal yàlla yàlla mi am pay yàlla yàlla fay te xam ne lu ci waay def doo ko rëccu di nuyu di ziyaar suñu rakku papa Ablaye Mbaye di ko ñaanal yàlla yàlla guddal ay fanam wéral ay cëram mu def teewaayam def ci dooleem yàlla na ko yàlla fay waaye képp koo xamante ni ak koo mënti doon donteeg benn tàngal nga nga def ko ci guddi gi yàlla na la ko yàlla fay ma am lu ma bëggoon ñu bàyyante ko xel nag balaa ñoo gàmm ma ne ma am lu ma bëgg ñu ci bàyyante xel balaa ñoo gàmm euh, bu ngeen ma mayee tuuti nopp ma wax ko bu ngeen ma mayul nopp nag ma bàyyi ko ma jóg ñu gàmm ñu gàmm après ku ne dem waaye dafa am loo xam ne dañ cee war a bàyyante xel ñun ñëpp bi ñu yàlla bind tàgguwul kenn ci ñun man mii bi ma yàlla bind tàgguwul ak aadama moom mii bi ko yàlla bind tàgguwul kenn kon amul kenn ku yàlla tàggu ci ñun ba muy bind keneen laa bind ci kàttanam am lu mu dogal ci ñun maanaam am lu mu ñu sant pour loo xam ne lañ ko war a matale yàlla binduñu ci neen yàlla binduñu ci neen maanaam yàlla binduñu pour ñu nekk ci àdduna topp suñu bànneexu ba kenn di def lu ñu neex dafa am lu tax yàlla binduñu te loolu tax yàlla binduñu ku ne war nga cee bàyyi xel ama ne bakken bu mos dun dana mos de lu tooy dana wow nguuru yàlla gi rekk dul jeex te doomu aadama lu koy dal da koy bett ngala liñ yàlla tabaaraka wa taala dimbalee ñu am sunu xel am suñu doole di dund ci àdduna lañ ci am yëg-yëg suñu diggante ak suñu boroom ba am njukkeel gu ñu delloo yàlla yàlla mayewul yàlla mayewul yàlla saraxewul yàlla dafay dénkaane ku téye ndénkaane ak sa loxo ba nga yaakaar ne yaa ko moom ba tax nga def ca loo ca war ta def juum nga ma ne inna almawta allazi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum summa turadduuna ila aalimul gayb wa shahaada fa yunabbiukum bima kuntum taalamun dafa am lu tubaab di wooye destine ne la yow doomu maadama lii mooy sa destin maanaam destin mooy li nga xam ne nee nañ mënoo ko rëcc ci faaw nga def ko du loolu la yéen ñu ma gën a dégg tubaab kon dee mooy destin wu doomu aadama doomu aadama mën naa rëcc ci lépp ba mu des dee mais doomu aadama mën naa rëcc ci lépp ba mu des dee ndax àdduna ñu ngi lay wax lépp yàlla neen la asaan tuhibbuna shay'an wa huwa sharrun lakum wa asaan takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wallahu a'lamu antum laa ta'lamun mu ne léegi la nga bëgg dara fekk li nga bëgg baa baaxul ci ci dara yow da ngay tëñëx tëñëx di dem rek léegi lañ nga bañ dara fekk la nga bañ moo gën ci yow xamoo ci dara exemple bu ndaw laa lay jox ñépp bëgg am alal te kenn xamul kan la alal baax ci moom exemple boobu laa lay jox ma ne ñëpp bëgg am alal te kenn xamul ndax alal ji ngay ñaan baax na ci wam déet am na koo xam ne ba mu amee alal la sànku am na koo xam ne ba mu amee alal la soppeeku am na koo xam ne ba mu amee alal la ko ñëpp jékki jépp ca pourtant nit ñi bëggoon nañ ko nañu xam ne alal day jeex taar day jeex kàttan day jeex yàlla na ñoo bind ñu néew doole bi ñuy ñëw amuñu benn kàttan yaxruju min bayni sulbi wa taraib wa innahu ala raji la qadir yowma tubla saraay fa maalo min quwatin wala nasir yàlla nee na doomu aadama ba ma koy bind ci biiru ndeyam sama atelier boobu yàlla nee na kenn ma ca yàlla ne na kenn jàppalewu ma yàlla ne na kenn dimbaliwu ma ma nekk fay defar li may defar te kenn fekkewu ma ca di changer doomu aadama ba doomu aadama doon li ma neex yàlla ne na doomu aadama yu su ma ñëwul woon keroog mu ñaaw ma ne jigéen ñaa ngi nii xam nañ ci dara ñu fi am doom yëpp xam nañ ne keroog buus boobu bës boobu heure boobu bu ndimbalu yàlla ñëwul mu doy waar ah yàlla nee na yow doomu aadama bàyyil xel loolu xam ne man yàlla man maa la dimbalee loolu nga judd ci sama kàttan yow doomu aadama nga juddu ci kàttanu yàlla yow doomu aadama nga juddu ci kàttanu yàlla man xaw ma lan moo tax senegal bu ñuy séddoo lekk faaw moom coow ma loolu rek ma jaaxal waaw ñi sant ñangeen ni jiñ nañ ko ñi sant faale ni ñi sant faaleen jiñ ko ñu sant jegeen ñi ñi sant baa jiñ ko ñu sant ndaw waaw waaw pour walla ne xam naa ne moom xaw ma lu ñu bañ waaye lekk bokk ci yàlla nee na man maa la defar génnee la ci sama kàttan yow doomu aadama te ba may def loolu kenn jàppalewu ma ba bind la ci sama kàttan yow doomu aadama ba nga génn ci àdduna kenn fekkewul kenn jàpp ci xalax naa kum daafan suma ma jaalo baddal daa fi quwatan ma bind nga néew doole ma ne lii bi ñu teg ci kaw lal bi est-ce que mënal na boppam dara lu mu soxla day jooy rek mënul dara bu yàlla deful woon communication ci digganteem ak yaayam du sotti waaye yàllaa def communication ci digganteem ak yaayam lu mu jooy yaay xam na ko yàlla ne na ma jekki-jekki rocci néew doole ko di rof kàttan xale bi dangay ngay jekki-jekki rek mu commencé toog bu joo bu yeewoo léegi day jug toog ci kaw lal bi jooy nga ñëw jël nga jekki jékki xale bi bu yeewoo day wàcc lal bi di raam nga jekki jékki xale bi ci boppam commencé jàpp nuy dox nga jékki-jékki xale bi dem yoonam nga jékki-jékki di ko yónni muy dem mu lay demal nga jékki-jékki di ko yónni mu lay demal ah nga jékki-jékki mu war a dugg école dugg école di màgg bënal boppam commencé xalaat yàlla ne na ki def loolu kookoy sa boroom waaye léegi nag xam nga lan la ñu war a xalaat xam nga lan la ñu war a xalaat bàyyi xel xam ne yàlla deful loolu ci neen yàlla deful loolu ci nen de mag mu toll ne yàlla mag mu toll ne yàlla ah nekkoon fi moom dong kenn fekk ko fi mun dogal a bind bind li ko neex moom yàlla defar doomu ci atelier boo xam ne jël taam di ko defar defar ko ba mu dool ko neex mu koy dimbali di ko kattanal di ko sàmm ba doomu aadama doon doomu aadama nekk ba xam maa ne magum jëmm doomu aadama war naa xalaat xam ne yàlla deful lii yëpp ci neen coono bi yàlla defu ko ci neen comme que dessinateur bi wala sculpteur bi mooy sculpter jël temps di defar ba mu mel li nga xam noonu la bëgg mu jël ko exposé ko di ci wut dara ah dessinateur bi dessiné ba mu rafet mu teg ko di ci wut dara ki defar oto bii defar ko ba mu baax ba mel ni mu war a mel di ko teg di ko jaay di ci wut dara ki defar baas bii defar ko ba mu mel nii def ko fii di ko luyee di ci wut dara ah waxantuma làkk yàlla ma ne bu kenn nax boppam gis nga wax ji wax ji mu neex mu naqari mu gàtt mu gudd gis nga dafa am loo xam ne moom moo ñuy jariñ dafa am loo xam ne moom moo ñuy jariñ te moo ëpp njariñ ci li nga xamante ni moom lañuy ñuy jot buñ ci nekkul ak leen lu ñu mën ci nekk dañuy perte buñ ci nekkee sax ci am yërmande yàlla ëllëg dama ne àdduna am na puusal ma toog àdduna am na paas bi ñaat nee na paasal nañ la waaw àdduna am na taxaw ci tali bi ñu yóbbaale la ah adduna am na damaa sonn ñëw ci waw ma laaj la nga def ma defal ma ndimbal adduna am na yooyu yëpp waa yooyu yëpp amul yow ma xiyam parce que yéen a may dégg ma ne yooyu yëpp amul yowmal xiyaam yàlla nee na man ko tàmbalee si biir kër gi ñu gën a bëggante ñu gën a joxante xorma ñi gën a soppante koo xam ne tey buñ la waxee lu ko naqari lu la naqari ci moom ci bedd mi nga xeex ma ne sa jur ku tudd turam ci mbedd mi wax lu mu war wax nga xeex sa mag wala sa rak kuñ tu ku tudd ci moom turam wax ci lu mu war tu wax nga xeex waaye yàlla ne na gis nga ñooñu nga xam ne ñoo mel noonu yàlla ne na yow man xiyaam loolu laay njëkk dindi ñu ne nooy def mu ne yow ma yafiru maru an aqihi wa ummihi wa abihi wa saayibatihi wa banihi ndax li kulli imri yow mi sin sha'nun yughnihi ma ne nañ bàyyi xel yàlla dama ne moom xam naa ne moom tey gars yi nañ waaw waaj moom tey lu ko dal te waaj changé doxalin de changé ma doxalin de damaa bëgg ñu gindi ko balaa ñoo dem ci leneen waaw changé wu ma doxalin de damaa bëgg ñu toogee nii biir àjjana ma ne changé wu ma doxalin damaa bëgg ñu toogee nii biir àjjana changé ma doxalin damaa bëgg ñun ñëpp ëllëg ñu jot ci yërmande yàlla wallaay tama xam ne yërmande yàlla yomb la jot dama ne bu doomu aadama nekk ci mbir ba naagu yaakaar na jot na yërmande yàlla déedéet ajjana bee ñuy wax kenn demagu fa mane ne ajjana gi ngeen di dégg kenn demagu fa mu kenn nax kenn kenn dugagul ajjana kenn nag amul ku yàlla bind laa la wax ku dugagum ajjana doomu aadama bu fa nekk nii instant bi amul ku la ko wax dalay nax ma ne ku la ko wax dalay nax ñun ñëppay taxawandoo ëllëg yow mal dugg ajjana soogaam wala dugg feneen waaye kenn dugagul àjjana Seydina Muhammad a ko visité njool Makka moom visité na ko visité na it safara waaw ci sallallahu alayhi wa sallam xam naa ne man de su doon man su fekkee yàlla daf ma visité loo àjjana ba pare na ma kaay visité safara dama ko naan bàyyil ma jéggaloo ko rek waaye visité na àjjana visité na safara wax na it benn wax ci visite ba mu visite safara ngeen baal ma waaye ne la ma fay fekk ci musóor bari na ma ne Seydina Muhammad nee na visité na àjjana visité na safara nee na àjjana moom parcelles yi yaatu na ba nga xamante nii yéem na ko te nee nañ parcelle bu nekk benn nit a ko moom waaye nee na ba mu visité safara li ko gën a yéem mooy que ne musóor yam fa gis bëri na lool kon góor ñi war nañ góor waaye jigéen ñi war nañ gën a góorgóorlu kon nag nañu bàyyi xel yàlla te xam ne àdduna bii day jeex luñ fi amit day jeex te fii lañ koy bàyyi lenn rek ka ñuy dimbali ci àdduna mooy ñu jaamu yàlla dama ne bu ñu xeeb jaamu yàlla bu ñu xeeb def lu baax bu ñu xeeb dundal sunna Seydina Muhammad te xam ne lu ñu am rek loo rek ñu ciy dimbali yaa daaru man laa daara la wala man laa aqala la adduna ku ko ku ko dëkkoo rek amoo dara kër yow mal xiyaam ku amul lenn lu mu yaakaar yow mal xiyaam mooy dëkkoo adduna waaye ku amul xelit mooy jël adduna yenu ko ku ko yenu di nga ko wàcce ndax ku ko yenn rek am na ku la ko gënoon yenu wàccee na ko ndax moom boo ko wàccee mu mu wàccee boppam ak am ful la moom boo ko wàcceewul mu wàccee boppam te bu koy wàccee du la neex kon loolu laa bëggoon ñu bàyyante ci xel ma ne loolu laa bëggoon ñu bàyyante ci xel te xam ne li ñu topp duñu bàyyi tànk jëluñ lañu ñu lu ñu bàyyi tànk jëluñu dee mu sunu kanam wër ñu ndomb te nee na balaa moo kontaan jël ñu kon nag nañu nekk ci li neex yàlla balaa dee ñëw ndax bu ñuy dee nekk ci li neex yàlla ëllëg ñu mën a dekk ci li neex yàlla kon alhamdulilahi rabbil alamin ah, loolu la ñu doon fàttali konte ci conférence bi léegi conference bi jeex ñu war a gàmmu gàmmu nag gàmmu balaa dugg ci gàmmu dama leen di wax gàmmu gàmmu dafa am lu ko tax a jóg xam nga Sénégal euh, adduna bi sax laay wax léegi borom xam-xam yi dañoo bari te jaxasoo te wuute gàmmu araam naag gàmmu araamul ak gàmmu dagan naag gàmmu daganul gàmmu bidaal ak gàmmu lii waxuma loolu yépp man waxuma loolu yépp xam nga nit nit bu fekkee ne xamoo yàlla xamoo Seydunaa Muhammad am na mbir yoo xamante nii bu ko nit ñi jéem a dégagé yow boo bëggee mucc ci loolu maandu ci ku toll ne Seydunaa Muhammad nga xam ne bu dul woon moom dara du nekk ci àdduna dara ku tol ne Ahmadul Khadim ku toll ne El Hadji ku toll ne Limaamu Laay dama lay wax rek yow duma sore sori fen ci fi ñu dëkk rek laay nekk ku toll ne Limaamu Laay ku toll ne Bu Kunta ku mel ne keneen ak keneen ñooñu nga xam ne dañoo jaay seen seen bakken yàlla maanaam jël seen dund yëpp jox ko yàlla ah nekk ci àdduna bi dund ba jege seen borom tabaaraka wa taala ba duggante ak yàlla ba yàlla jox leen ay sekkare mbooloo ñuy mën a dimbali doomu aadama ñu bàyyi seen lépp di guddi màggal guddik Seydina Muhammad yow nga saxum sikkim fële te naan guddi gi dafa haram xamoo yàlla xamoo Seydina Muhammad dégg ngeen maam déet dama ne xam nga Serigne Touba kenn du nattab la ne góoru yàlla piir la El Hadji Malick kazalika naka noonu Limaamu Laay kazalika naka noonu Bukunte noonu ñeen ak ñeen noonu waa léegi ñooñu bu ñu bàyyee seen lépp di màggal guddi gii Abdou Khadr Jeylaani kaamilu jeyli sultaanul awliya yi wàllu la wala du wàllu yu nitu yàlla la wala du nitu yàlla waa ñooñu bu ñu bàyyee seen guddi yëpp bàyyi seen lépp di màggal guddi gii yow nga doon ustaas bu ndaw bu dem jàngi ji bërki démb ñëw tey ah nga xam ne amoo sax baatin sab saayir sax matul nga am sañ-sañu toog fu ne nga tudd fa naan dafa haram xamoo dara sañ naa la siyaar naa la maa ngi ñëw maa ngi ñëw ma ne ku mel noonu ñu mel noonu ñu mel noonu bu ñu bàyyee seen lépp bàyyi seen lépp di màggal guddi gii yow borom xam-xam bu ndaw bi nga jël sa sañsañ naan gisuma ko fenn kon dafa xaraam Seydina Muhammad defu ko kon dafa xaraam man la xamoo dara ndax bu doon dafa xaraam ñooñu egg ci yàlla duñ ko def ndax ñooñu ragal nañ seen boroom ragal goo xamante nii lépp loo xam ne yàlla àndu ca duñ ko def te nag wax day leer ma ne wax day leer gis nga yàlla ci boppam léegi damay wax bill yàlla wax ngeen xool est yàlla wax ak li ñuy def daa wuute inna allaha wa malaykatu yu salluuna ala nabi yàlla nee na man yàlla maag samay malaaka dañuy julli ci seydina muhammad ne yaa yoo lazina amanu hee yéen ñi gëm ñu naa mu ne sallu alayhi julleen ci moom loolu ndigal direct la dama ne ndigal direct la du indirect ndigal direct yaa yoo lazina amanu ñu naa mu ne sallu alayhi wa sallimu taslim yéen ñi gëm ñu naa mu ne julleen seydina muhammad ah ñu waxaat mu ne la huwa allazi salli aleykum wa malaikatihi li yuxrajakum min azulumaati an nuur wa kaana bi muminan rahima nit da ngay am dégg-dégg waa ahlu sharia ngi nii ñoom ustaasa ngi nii lu bari tey ci àdduna ñu ngi koy tere te pourtant sharia mi la ko tere loolu bu la tere mentionné wuñ ko ci alxuraan dëgg la dëgg oustaz ma ne sariya mu ngi lay tere ay mbir direct yoo xam ne danaan la boo ko defee am nga bàkkaar te loolu mu la wax boo ko defee am nga bàkkaar yàlla wax ko ci alxuraan mën naa jël yu bari ñu teg ko ak ku mënti doon nga ñëw tax nga ne ma bii bu nekkee ci alxuraan yàllaa ko wax mu ngi ci alxuraan ma may la loo bëgg ci na wala ma doon yéefar te pourtant ñu ngi koy bàyyi nangu ko sariya ne sariya def na lii ne lii baaxul ñu bàyyi ko te pourtant lii ñu ñuy bañ loo de lii lii nii ñu ñuy bañ loo yàlla nee na maa ko njëkk a def maak samay malaaka nañu def leen ko te yaakaar naa lu ñuy wax rek ci ci jaamu yàlla lu alxuraan waxul la ñuy wax waaye lu alxuraan wax kay dañ ko war a def li julli ci rasulilaay la bu doon yàlla xam nga dama ne nit da ngay am dégg-dégg bu doon yàlla bu doon yàlla euh, ngeen noppi tey ngeen noppi rek ñu waxtaan man dèjà maa leen dàq yuuxu man dong su ma nekkee micro bi rek maa leen dàq yuuxu yéen ñëpp ba pare su ma jëlee micro boole ci xam ko xam nga maa di kii mais nañ déglante rek moo ñu fi ñëw moo ñu fi tax a jóg nañ déglante xam naa dañoo nammante nag ndax am na fi ñoo xam ne gëj nañ gisa lool moo tax moo tax nam man nammante gi am waaye nañ dégloonte man moom ay wax déranger wu ma man mën ngaa den nag man di wax sax ma kon ne wax man waxkat laa bi ma juddoo laa commencé damay wax ba dee samay maam dana wax ba dee loolu la suñu faa samay suñuy maam dañuy wax ba dee man damay wax ba dee samay doom dana war a wax ba dee samay set dañoo war a wax ba dee ñun wax mooy sunu métier te wax ci yàlla ak xam Muhammad dong la waaw moo tax man mën naay wax ci yàlla ak rasulillah yi nga toog sama wet di wax la neex doo ma dérange sax parce que su may wax ci yàlla ak Seydina du ma doon man du ma yëg sax sama bopp ndax sama loolooy sama mbégte te looloo may dundal ma la kon yàlla wax ne lii boo ko defee ma defal lay xéewal ñu bëgg la koo xañ ñu bëgg la koo xañ ndax lan parce que dañ ne ñoom boo ko defee am nga bàkkaar ma ne bu yow mal xiyaamee dina leer bu yow mal xiyaamee dina leer kon bu ngeen déggatee loolu bu ko faale te ñu xam ne lu ñu nekk looluy dëgg léegi nag siiw na ndax léegi dañ ko baral di ko baral di ko wax fu nekk waaye bu mu tax kenn bay ndeysaan damay fàttaliku muy Seyda Abdullahi ba ndeysaan benn waaye daa ñëw moom waxuma la bàyyi de waaye daa ñëw ne ko sëñ bi yow da baax wax lu nekk sëñ bi ne ko jërëjëf mu ne ko leen rek daal laa la yërëmee mu ne ko mu ne ko sa gàmmu gi sëñ bi ne ko ah, lu ci nekk mu ne ko ñetti fan yi ngay gàmmoo naan man daal dafa bari ñetti fan daa daa bari li nga ciy dépensé daa bari mu ne ko nag Seydina Muhammad bu doon mën naa koo gàmmul semaine dama koy def ndax jaral na ma lépp loolu ok lii mooy sunu tontu mawlidul musharrafu mubarakan muhtaramu taazimu yanxatimu ala zawi taqaddumi bàyyi basak baara maam mi danak Cheikh Mbacke góor ga demong gabong borom jumaa ju mag ji ci ndongo yu mag yi borom ilaay xaadallaahu maalam yakku ni wala yakunu abadan lil munkini ki nga xam ne moo taxaw ci àdduna ne yàlla defal na ma loo xam ne mësu koo defal ñu fi jiitu te du ko defal ñu fi mujj moom ahmadul xaddi moomu nee na guddik seydina muhammad màggal ko ñu naa mu ne waru gar la ci képp kuy dukkat waxul julit waxul yéefër waxul doomu aadama beneen defal ne lépp luy dund rek ci kaw suuf di dox mu ne màggal guddik seydina muhammad waru gar la ci yow lu mu wax sallallahu alayhi wa ne bàyyi basak baara maam itam ak Cheikh dafa am lu mu wax te loolu mu wax day firndeel li ma doon wax léegi ci li nga xam ne moom la yàlla wax ci lan màggal guddik rasulillahi nee na màggal guddik rasulillahi jërëjëf papa mu ne màggal guddik rasulillahi màggal seydina muhammad sallallahu alayhi wa delloo njukkal rasulillahi ñu ne mu ne warugar la ci bépp doomu aadama buy dukka ci kaw suuf wala boodul doomu aadama bàyyi ma nga mu ne bàyyi may sax dañuy màggal guddik rasulillahi mu ne yéefar nga mu ne yéefar sax daa war a màggal guddik Seydina Muhammad ndax tey loo doon rek ak loo mënti am ci àdduna ak koo mën a doon mu ne njool makkaa tax nga doon ko ah. jërëjëf gis nga gis nga gis nga ilaay xaadallaahu maalam yokku ni damay waxtaan ak euh, bërki démb sama gaay ñi waxtaan ci ilaay xaadallaahu malam yokku ni xam nga boo déggee wax ji boo déggee wax ji euh, da nga boo ko xalaatee da nga naan est-ce que est que moom war naa wax loolu ndax Seydina Muhammad tang ci loo bi ma ñëw Seydina Muhammad tang ci loo bi ilaay xaadallaahu maalam yokku ni wala yakuna abadan lil mulki ni Seydina ma daa nekk ci loo bi te ñëpp xam nañ ne ma yëpp ci Seydina Muhammad la jóge waaye déedéet ndekete boo diggee yàlla xam yàlla ay mbiram xam yàlla kattanam dagay xam yàlla ni muy mayee jërëjëf waaw da xam yàlla ni muy maye alamin yàlla boo ko xamee xam ay mbiram xam kattanam ah jib yow it maa ngi lay nuyu macha allah yàlla boo xamee kàttanam xam ay mbiram nan la jërëjëf da ngay xam yàlla ni muy mayee Ahmadou xam na la yàlla ay mayam bokkul yàlla li muy may bas ak li muy may naan la bokkul yàlla li muy may Cheikh Ahmed Fadal ak li muy may Samba Boy Samba Mbool bokkul yàlla li muy may Mame Ass ak li muy may Ñang Fay ak li muy may Modou Gueye bokkul ñoo bokk ndey ak baay waaye sama gars yi gis ngeen ñu rafetee samay doom bàjjeen lañ macha allah ak samsu yal na yàlla guddal seen fan wéral seen i cër fa tabaarakallaahu waaw euh, tey moom macha allah xam naa ne euh, lii moom baax na trop sama gars yi ngeen ñaanal leen dégg nga ñii samay doom bàjjal lañ euh, gis nga yàlla ni muy mayee bokkul moo tax Ahmadou ba mu xamee ne yàlla ni muy mayee bokkul mu ne kay ah kay yàlla may na ma loo xam ne mii ma may mii doo du ko may ñi mayu ko woon ñu njëkk te du ko may ñi mujj te may gii benn may la te man rek man maa ko moom عجبا للكون والله إن الذي من الله أصدق عن الكون وفي فستو بلني الله على الله بلا سمر بابنا لم وخ خالي رسولنا لم وخ صلى الله عليه وسلم بلني الله على الله بلا تخرج وأمري تقبل خابت قرات يا مال وشاد xaa gis nga gis nga gis nga yàlla boo ko xamee rek noppalu yàlla boo ko xamee rek noppalu oustaz yàlla boo ko xamee rek noppalu jërëjëf yàlla ay mbiram dafa doy waar yàlla lim lay may moom yàlla jërëjëf moom ci boppam moom moo lay mat ca loolu waaw dama ne am na koo xam ne tey këram la nekkoon fas yéenewul woon sax ñëw ci tànt bi te wóor na yàlla tey li ko war a jëriñ ci tànt bi li ko war a dégg gis nga yàllaa koy mat moom ci boppam jërëjëf ba nga xam ne dina doxantu ba ñëw toog ci tànt bi te du xam lu ko fendi lim fi war a dégg mu dégg ko fi buñ la rafet njool makkaa tax buñ la nee sama waaji dangaa leer ne buñ lay bëgg di bu doomu aadama topp ci ginnaaw doomu aadama di ko defal teraanga njol makkaata bu doomu aadama yi sukk di raam ci kanamu doomu aadama njol makkaatax jërëjëf bu doomu aadama di dimbali doomu ci kanamu doomu aadama yi raam Seydina Muhammad tax waaye lekk ba suur di naan ba màndi Seydina Muhammad a tax buñ lay toggali ginaar njool màkka a ndax bu du woon moom yàlla neen du ma bind dara yàlla neen lu ma bind njool màkka a tax moo tax waykat ba ne la koo doon ak ku mënti doon nabi rekk la yaakaar